jërë ngeen jëf mbokki internet Allô Sénégal ñi ngi rafetlu topp bi ngeen ñuy topp ci information yu wóor yu leer li leen di jox saasu ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun rek la ñuy waxaat beneen yoon askanu yëmbal gépp ñoo yendoo ak nakar ak tiis nar ko fanaanoo gannaaw ba ñu nemmee ko ak benn xeex boo xamante ni mën nañu sax bagaar famille yàlla woon ay famille boo xamante ni ñoo jote ci xiiroo ak ñaayoo xëccal diw bàyyil diw ba ab nijaay jam jarbaatam mu sedd guyu looleen ñi ngi ko nemmeekoo ay booru 19 heures gannaaw ba xeex bi taqarnaase ki nga xamante ni moom mooy M Lelu toll ci 18 ans muy fukki at ak juróom-ñett ñu daal di koy jam te ki ko jam du kenn ku dul tee Lelu di nijaayam moo ko jam mu daal di jaare ñàkk ba kanam ki ko jam nag mi ngi toll ci fanweeri at gannaaw ba nga xamante ni yegg na coow la yegg na ca police bu yëmbal arrêté nañ nag ka nga xamante ni moom moo def jëf ji loxo yoon teg na ko loxo te jébbal nañu ko itam yoon dana ca def liggéeyam ñuy ñaanal mbokki ki nga xamante ni moom mooy ëmmaleelu suñu borom yal na leen may xolu muñ aji dem gi suñu borom yërëm ko xaare ko àjjana jéggal ko ay bàkkaaram di wax ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun lii yàlla na fi gëj yàlla nañu gëj a dégg yi mel nii ci suñu réew jërë ngeen jëf